Yeah, I feel like ama ñun géejawaay la ñuy tiitaroo amuñu fenn furul géejawaay voilà loolu dong la mooy wax maaji maaji mën nañ ko xaar ci lan maaji maaji léegi léegi mu war a waaw xam nga maaji maaji ndaanaan la defoon na fi nu ne xañ dafa tëjoon ci làmb sorte mujj gis ngeen ko yàlla may ko ndam tey tam ñoo ngi koy may ko ndam waaw loolu dong la ñaanal xale yi ñoom ñëpp ñu am combat géejawaay yàlla may leen ndam waa ji caaro yi lu ma wax mooy ah. Ah. la ah rëg rëg def na ne Reug Reug champion la ndaanaan la comprendre su ko euh, Sa Thiès daane yàqul dara ci yoonam yàqul dara ci yoonam wax ju wax daal day rafet wax day rafet waaye ñàkk ba pare di ñànk baaxul ñàkk di ñànk baaxul euh, waaw Ngor sant Ndiaye dégg nga wax ñaaw yi ma ay Bécaye Mbaye ay Moustapha Gueye ay Lamine Samba ah ay Fadam ay Malick Thiandou ba ci Cheikh Sarr ba ci Cheikh Sarr dañoo tere kenn bëre lan la ma tere bëre ma bëriwul ci man la. mais dañ laa visité xaw ma. visité lan. fekk benn ndax li mu waxoon nee na man benn la. benn nee na dañ laa visité fekk si yow benn <laughs> benn patt. la du ma morom ah naam benn patt la. li mu wax. nee na lii yii lang. waaw nee na benn patt la yor ñaar laa yor yoruma benn. ah nee na benn yor non non ñaar laa yor vraiment ñaar yor yoruma lii lang ñaar laa ci yor. yow góor nga man góor laa. waaw mën nañoo dugg léegi toilette bi mu ne waa CNG dañuy dañoo visité. waaw nga yor peer ñu ne la doo bëree di. waaw <laughs> waaw xam nga yooyu dafa ñaaw xam nga wax yu ñaaw. dafa gaaw waaw waaw dafa ñaaw. dëgg la tamit bëgguma ko wax wax ju ñaaw su may wax wax bu ñaaw billaahi damay rus. ndax ay doomam su koy wax bu ñaaw. man damay rus ndax ay doomam. ndax ay doom samay doom lan. comprendre nga ku ci mel ni Fama. Fama ngi koy jégalu di ko baal ak doomam la vraiment maa ngi koy jégalu moom mënut a wax man bëgguma wax bu ñaaw daal waaye lépp moom waxu njëkk yéen xam ngeen jikkoom ah mënu ta ñàkk ba pare bëgg a ñànk nag wax ñaaw baaxul wax ñaaw baaxul Reug Reug la mais yaram gars yi waxuñu la dëgg baal mu xañ ngay téye tamit waaw non non ndax moo ko nag dégg naa Sa ne da nga éviter xaalim Njaay añ xaw waaw am problème man mën naa ko añ su ma jënal ko xar wala ka ceeb pomme de yónnee ko ko. moom Xaadim Ndiaye sama mag la wax ju ñaaw ñu laa bëgg mu bàyyi ko rek. ndax mën nañu xam maanaam sa diggante Xaadim Ndiaye lépp mën na jeex jàmm. non non man amu jàppalu ma ko dara waaw jàppalu ma ko dara làmb la woon jaay nañ làmb ja léegi jeex na wax ju ñaaw ji mën na ñàkk ku nekk di génn di wax bu ñaaw li ñuy wax amul benn sens. te li ñuy wax dara amu ci man ku ma xamal lu ñaaw wala wax bu ñaaw wala ma leen wax génnal nga wax ko man may naa la nga génn nga wax ko maa ngi jégalu ñëpp nag ñi ma bëgg ak ñi ma bañ ndax tey sama coobare si ngóor sant jaay rek moo koy génne moo koy wax lamb la woon jeex na jeex na vraiment ñun ñëpp ñoo bokk ndey ak baay ñoo ngi félicité ñëpp koo xam suñuy fans la ñu béggee ñoo ngi leen di félicité di ñaan sama rak yi am combat yàlla may leen ndam géejaway ba euh, dimanche bi di ñëw ñaabu ndaw mooy bëre di ko ñaan yàlla may ndam waaw ëllëg sa kees sa kees dugg na ko de grand sa kees ku ko bañ da nga koo ragal fi mu ne tubaarikàlla macha allah xale la te si yoonam ku ñëw baax na mi ngi la daa nekk si yoon comprendre nga yàlla dimbal na ko ak na coup de kay na gars yi ñëw rek loolu donc may wax ci waaye du leneen. Bombardier may la saa kay bàyyiwuf kenn bàyyiwuf kenn day liggéey xale la day liggéey. bàyyiwuf kenn xale la waaw loolu donc mooy wax ji ah. mais Lac de Guiers dañ ko gëj a gis Lac de Guiers. waaw Lac de Guiers mi ngi fi Lac de Guiers moog Tapha Tine combat bu neex la combat bu ñoom ñoo na fu ñu jaaroon. a neex a neex la ndax ñoo ngi doon combat ak Siteu ba léegi déggaatuñ ci dara dañ ko jox euh, euh, Tapha Tine combat la. ndax waaw ñoom ñaar combat la ay naataangoo la. combat la bàyyiwuf kenn. liir yàlla nga am jàmm. amiin yow yàlla nga am jàmm liir yàlla rafet xol. amiin àdduna amul solo. alma poli borom riti bi raam nga alma wa taala man yéenuma kenn lu bon ñi ma dëkkal yéenuma kenn lu bon ba ci ñi ci biti ñi ma dëkkalool yéenuma kenn lu bon billaahi wallaahi su ma yéene kenn lu bon man yàlla naa ci jiitu ma ñàkk sama ndey sama baay te naa kenn lu bon man yàlla naa ci jiitu yàlla nga gudd fan lamb la rek dafay jeex suñu papa yi jaar nañ fii ana Moustapha Gueye def na lu ne ci lamb tey ni ngi nii ah? wax bëreetul ah dafay rafet wax dafay rafet wax dafay rafet Moustapha Gueye li mu gis la wax Dagaay Mbaye li mu gis la wax ah, Malick Thiandoum li mu gis la wax loolu la CNG confirmé kii nu mu eh, Samba li mu gis la wax waaye wax ju ñaaw ji jaru ko Khadim Ndiaye na bàyyi wax ju ñaaw ji kilifa la na xool ci turam duñ ko tuddee ñun ay taalibe lañu bëggu ñoo sàllar ñu tur bi chaque jour su ma koy tooñ wala xam dama naa ko ngóor si ndax man ab taalibe laa ab taalibe laa li ma gis ni daaru musi laa jógee vraiment waaw way ah, ah, ñun ay taalibe lañu ñun ay taalibe lañu yàlla na yàlla na fi yàlla def jàmm dégg naa tay am nga oto ba ma amee oto tay sant yàlla rek kat kat ngay dawal liiru ma lan laay liiru tekki nga waaw merci macha allah maa ngi lay ziar maa ngi lay ziar baax affaire fan yi na nga gisee li nga xamante ne mooy làmb waaw lamb ji mi ngi dox de mais bëri na coow. dëgg la parce que bëri na ay erreur li nag moom mooy yàq bi ñuy yàq arène bi. loolu moom mooy problème bi ak des fois arbitrage bi des fois dañuy nelaw tuuti. mais doomu aadama matul nag. doomu aadama matul yàlla daf ñu bind ci matal yi. doomu aadama dafay juum. mais lépp nañ delluwaat ci dëgg rek ndax feeñ ne tey boo gisee saa kees ak rëg-rëg mujj na verdict bi mujj na wàcc. moo tax dëgg day mujj rek dëgg mooy mujj. mais coow mënut a ñàkk lamb mais famille la ñu. ñu bokk ndey ñu bokk bàyyi lamb ci famille la. li may wax xale yi rek mooy ñu dal ñu xam ne sport day boole ndax loolu mooy réew mi. réew mi waruñu ko yàq surtout arène bi xam ni dañ ko soxla woon di ko laaj be am ko mais boo xoolee rek. mi ngi bëgg a yàqu te du yoon. sport rek la sport rek ñu gis à chaque fois. Ah, li am keroog day répété wu à chaque fois day répété wu. Ah, si ginnaaw loolu mooy am erreur arbitrage yan pexe lañ mun a teg ah, pour loolu mun fee jógee. waaw dëgg dëgg yëpp parce wax nga ko léegi cinq 50 ans si ginnaaw jiitu na seen juddu. mais 50 ans si ginnaaw ak tey ak 2023 bokkul. kon adduna dafay dox. ndax lambi démb ak lambi tey bokkul. mais lamb toujours lamb la parce que yow. 73 la ñu seetaan lamb xam ne 73 yi ñëwagoo. ñëwagu leen. lamb lamb du fi jógee parce que cosaan la ñu ñoo ko moom. mais mentalité yi ak ak yar beeg teggin bi ak valeur yi am dañ ko dañ ko dañ ko parce que lamb culture la te bu ñu nee culture la c'est le parce que nit bu amul savoir du dem. parce que lii lépp ñàkk savoir la rek. sport boo daanee yàq bu génération bi nañu xoolaat seen conscience. yaa ngi koy wax léegi te yow nit ñu baax ñi génération bi baax ci yéen ci ngeen bokk. moo tax nga may laaj. mais kon booy yi dañuy ànd ak yar ak teggin. violence bi amul solo. ginnaaw ci démb amul woon. yi nga gis yëpp amul woon démb. wax lu ñaaw joxoom ak cër xotti wor ma. amoo yar xàmme woo ràññee woo te xoolal fii bàyyi ak ndey yi ak nijaay yi ak maam ñoo nekk làmb ji foog ñu delloo valeur ci làmb ji mooy joxe waat cër bi. ku nekk cër bi nga moom ñu jox la ko xoolal rek wax lu ñaaw buñ la daanee ngay xaste gars yi nekk si youtube bi internet bi di wax lu ñaaw si làmb te ëllëg ñooy ñu bu bu daj amee ñun la bu ngente amee ñun la bu takk amee ñun la kon ana ana ana ana mbir mi mais loolu am na solo mais ñoom ñaari mbëri Sa Thiès ak Reug Reug waaw ñoom ñaari mbir nan nga leen gisee keroog bu ñëwee si stade waaw ñëw nañu tey yaa ngi taxaw maa ngi taxaw ñu joxante loxo loolu mooy sport Reug Reug daanu na ñëpp xam nañ daanu na mais erreur am na mais mais nañu toog waxtaan rek bu ñu waxtaanee jubóo yaa ngi ci tey lu mu rafetee Reug Reug ñëw na Sa Thiès ñëw na Reug Reug nuyu na ko Sa Thiès jox na ko jeex na Sa Thiès moo daan Reug Reug Sa Thiès ay champion lañu ay doomu ndey lañu ñooy mayante kon dañu delloo si xel yi rek. ndeysaan kontaan nañu trop. xam naa après dinañ ko gën a waxtaane après dinañ ko gën a waxtaane. waaw kontaan naa si yow. incha allah ñoo lay jaajëfal bëgg naa si yow maa ngi ñaan yàlla une motivation yàlla yokk ko. amiin arène maa ngi nii jàmm réew mi jàmm la soxla dañ la ñuy def jàmm. day jeex li amul solo jërëjëf. jaayee benn as yéen waaw jërëjëf jërëjëf.